jamono ji fi mu tollu c'est le pays qui en danger c'est le peuple sénégalais qui est interpellé par des agissements yoo xam ni kenn mënu ko nangu kenn mënu ko comprendre le système électoral sénégalais dafa jëloon ne su ngeen fàttalikoo ni mu évolué depuis quatre dañu weddi woon administration ak état ci dëkk dénk ko organiser élection li taxoon mooy lan dañu gisoon ni fonctionnaire yi ak administration yi neutralité bi ñuy laaj ci ñoom di ko xaar ci ñoom di ko yaakaar ci ñoom ñu ci bari duñ ko doxale parce que duñu taxal ñëpp loolu moo taxoon changement yi amoon su ngeen fàttalikoo onel amoon sénat bi am moom yàlla xam na amoon aussi direction générale des élections su ngeen fàttalikoo 2012 ministre bi yor élection ministre la nekkatul ci autorité ministre de l'intérieur lu ni mel nii lañ doon bañ yaakaaroon nañ ni les agents de l'administration ils auront ils ont appris de leurs erreurs et de leur passé, pour comprendre la défiance des acteurs poli politiques et des populations vis-à-vis de leur comportement. Thaï, malheureusement, nous sommes en train de déchanter. L'idée ci wax mooy dëgg li fi xew ñun ñëpp xam nañ c'est vrai c'est la première fois dans l'histoire électorale du Sénégal qu'on ait autant de problèmes ñenn ñi sax naan cacophonie ñenn ñi naan lu jàmbaajoo ren li fi am guléet la sufi fi guléet amee dañuy yaakaar di xaar ci ku nekk nga jéem a doxal yoon et malheureusement l'administration sénégalaise est en train de faillir et elle a failli li fi dëcc wax dëgg la yéen ñëpp xam ngeen ñetti problème yi fi am ñetti problème yi fi am ba tax coow lig jolli benn bi mooy ñàkk respecté loi wu parrainage yéen ñëpp seetlu ngeen ni la commission ci ñi ji ci ñi déposé woon ñi ko respecté wul ñëpp dindi nañ leen waaw luy ndeyu liste benn Bokk Yaakaar violé texte parrainage ba léegi kenn notifié ko ni ko ba léegi am on a fait un recours pour ça xam nañ sax ni ñuy conseil constitutionnel di tonto parce que tant que délai euh, soixante jours yi jotul ba ministre bi publier arrêté bi conseil su leen neexee ñu ni suñu recours boobu ñu def ci parrainage yi teel na mais dafa dañ ko def léegi pour parce que dañu bëgg que sénégalais yi xam ni waa DGE waa ministère de l'intérieur li ñu waroon def defuñu parce que ñoom xam nañ ne liste benn Bokk Yaakaar violé na loi bi sur le parrainage te jurisprudence yi bari lool soxlawul sax ñu développé ko njombe boobu jëkk am mu jëkk révolté nit ñi ba léegi notifié wuñu leen ba léegi kenn notifié wul benn bokk yaakaar ni ko bokkatoo ci élection yi ba seen mandataire di am droit sax dem di seeti listu jàmbur bokkatul bokkatul nu moom tey jii dafa waroon dem fële conseil constitutionnel di jëmbut recours ñaareeli problème bi fi am mooy ñàkk respect parité ñàkk respect parité respecté parité ñun benn bi dal na suñu kaw muy listu departemental majoritaire bu Dakar mais benn bi dafa dal ci liste nationale bu benn Bokk Yaakaar Déthié fàttali na ko léegi le ministre de l'intérieur nous a notifié que ni liste benn Bokk Dakar euh, liste euh, Yewwi Askan Wi ci Dakar c'est di d'irrecevabilité pour non-respect de la parité ba ñun ñu def recours conseil constitutionnel waaw li ma bëgg askan wi jàpp luy ndeyu ba fii ñu toll benn Bokk Yaakaar kenn notifié wu ko ni ko sa liste paritaire wu sa liste nationale paritaire dafa génne dafa wunde ñaari yëf bu njëkk mooy d'abord contrôle bi nga xam ni moom la DG def ci listu Dakar defu ko ci liste nationale benn bokk yaakaar parce que avant Déthié di ko wax su fekkoon ñoom ni ñu contrôler listu Dakar bi bu Yewwi noonu lañu ñu listu benn bokk yaakaar dinañ gis lool ça signifie quoi que xooluñu ko seetuñu ko bëgguñu ko gis benn ñaareel bi ni ñu notifié dakaar ba léegi fii may wax ak yéen notifié wu ñu benn mbokk yaakaar ba léegi parce que su fekkoon notifié nañu benn mbokk yaakaar au moins dana def recours comme ñun dem conseil constitutionnel et bon ñu weccoo ay mémoire donc notifié wuñ leen Comment pouvez-vous expliquer ce comportement de la DGE et du ministère de l'Intérieur lu dul une volonté imposée nit ñi loo xam ne lu dul lu dul dëgg du yoon ñu génneel ñu dernier problème muy inéligibilité suñu benn candidate question boobu dafa yomb ba xam ni ñun defuñu ko sax problème parce que inéligibilité la loi est très claire ku inéligible dañ lay changer mais ñoom fi ñu bëgg a génne foofu la njuuj njaaj ame parce que ñëpp xam nañ ni caractère complet wu liste ñu ni ndax list complet na jurisprudence yi dafa nekk à foison depuis mille un depuis Alelo 2001 la am ay jurisprudence ba bi mujj mooy novembre 2021 ci élection locale yi ci suñu liste ñun Pikine rek par exemple ville de Pikine que ce soit la Cour suprême que ce soit le Conseil constitutionnel Ils ont tous dit que le caractère complet de la liste s'apprécie au moment du dépôt. C'est net et clair. C'est au moment du dépôt qu'on dit qu'une liste est complète ou qu'elle ne l'est pas. li ci des lépp lu ci am rëq-rëq dañ kaa et bi mu ñu dalee 2001 dañ ko changé yéen koy fàttaliku bi mu dalaatee dañ ko changé donc euh, pourquoi tey ñuy indi interprétation boobu naan amoo droit changé ko dañ koy génnee parce que li ñu wax sax c'est-à-dire ni ñuy tordre loi bi moo ñaaw parce que gis nga su ëllëg candidat nekkee ci ñaari list la loi est très claire ce n'est pas la liste qui est sanctionnée c'est le candidat qui est sanctionné c'est-à-dire man su ma nekkee ci ñaari liste parce que dama signe li ñu tuddee déclaration de candidature ci déclaration de candidature boobu laay wax ne man bokkuma lu dul ci bii liste su fekkee dañ ne la li nga def yaa ko def sciemment sanction biñ ci prévoir mooy ñu condamné la di nga fay xaalis wala tëdd kaso mais on n'annule jamais jamais la liste. C'est le candidat qui est enlevé et il est remplacé. ñoom dañuy yem ci li ñu wax déccee dañuy yem mi parcours dañ ne ko dañuy génne candidat bi wante kenn du ko remplace et donc votre liste devient incomplète foofu fan lañ ko wékk ban texte ko bidd 179 bi ñuy wax L 179 waxul loolu donc euh, mbokku Sénégal askanu Sénégal li xew fii day bëgg a doon maa tey ak lu ma neex def parce que maa yor nguur mënuñu nangu que des violations flagrantes de la loi électorale tant au niveau de ses dispositions concernant le parrainage qu'au niveau de la parité aient été violées qu'elle n'ait pas été sanctionnée par la DGE et qu'aujourd'hui qu'on puisse te permettre de nous dire que yéen dañ leen di sanctionné ci loo xam ne amul base légale mu bëgg wax askan wi bëgg wax kilifa Sénégal ko duñ ko nangu duñ ko seetaan te du fi ame et je vais être net et clair il est hors de question que cette forfaiture-là puisse passer mënul ne su fekkoon dëgg la mais du am histoire su fekkoon dañu teg ñun ñëpp au même pied d'égalité du am histoire day mel ni yëfu kumba am ndey ak kumba amul la DGE ne contrôle pas les listes de Benno la DGE ne sanctionne pas les déficiences ou les défaillances de Benno par contre liste opposition yi baaluñu leen dara il y a une limite en tout damay wax ñëpp ñu jàpp ni cette forfaiture ne passera pas wax nañ ko kilifa yëpp nag nañ ko yëg askan wi yëpp nañ ko yëg lu fi am ëllëg que kenn di wax ni waxuñu ko fi woon duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Nous invitons tous les militants de la démocratie. Nous invitons tous les Sénégalais patriotes dans quelques semaines, dans quelques heures, dans quelques instants, ñu dajeeg ñoom waxtaan daañu def une grosse assemblée générale d'information. Ce sera un rassemblement populaire pour expliquer askan wi li nga xam ni moom moo nar am pour que ëllëg kenn du ñëw ni ah yëguñu ko woon kenn du ñëw ni xamuñu ko woon kenn du yëg ñëw ni fooguwuñ ko woon daañu woo sénégalais yi daañu woo suñuy militant suñuy camarade daañu dajeeg ñoom daañ leen expliquer yëf ki nan la deme pour que ëllëg su taxaw jotee bañ jotee boobaa duñu bett kenn ñaareel bi ñuy wax kilifa yi ñuy wax toutes les organisations yi nga xam ni su réew mi melee ci nenn ni wala nekk ci nenn ni dañuy jóg ñu del yëgal ni bëgguñu bett kenn bëggu kenn wax ni xamuñu woon c'est pourquoi que chacun prenne ses responsabilités parce que yëfum kumba am ndey ak kumba amul ndey du fi jàll les fonctionnaires du ministère de l'intérieur on fay su fekkoon li ñu teg la ñu teg bennoo coow du jub ñun ñëpp dañuy dem conseil constitutionnel mën nañu wax sax parce que dama bëgg di anticiper lu ne ci procédure bi mën nañu wax sax ni dañuy afficher suñu affiché na ñëpp dem conseil constitutionnel su fekkee loolu la lu tax ñuy wax Déthié Fall li ñu wax tey parce que loi bi mënoon mooy comme que ñoom nee nañu période de contrôle bi weesu na ñu teg ñëpp ci yoon te balaa période de contrôle bi di di jeex la wax askan wi manquement défaillance ak faute yi nga xam ni moom la liste Benno Bokk Yaakaar def et pourtant jóguñu waxuñu deful ñu leen dara donc ma bëgg a wax mbooloo mi ni ak askan wi que am na lu kenn dul nangu Sénégal na kenn xamu ci tooñ ci fayo rek la ñu xam depuis que li jub kenn dégguñu waxuñu dara gis ngeen dañuy ñëw fii on informe l'opinion et nous on fait toutes les procédures on a fait toutes les procédures pour que ku nekk jël sa responsabilité mais li fonctionnaire u DG yi wax déccee te wékkuñu ko fenn su fekkoon dañu am dëgg su fekkoon li ñu wax dëgg la su fekkoon li ñu teg dëgg la ma ni duñ ko histoire on va au conseil constitutionnel parce qu'on a les arguments pour sa su fekkoon ñoom li ñu bëgg a teg teg nañ ko Benno Bokk Yaakaar on serait allé au conseil constitutionnel parce qu'on a les arguments pour ça mais ñële waxuñu leen defuñu leen def teguñu leen dara ñoo nga toog mais ni ay bébé yu ñuy foye mani ñun duñ nangu lool Je veux que les Sénégalais le sachent, qu'ils soient fixés, qu'ils soient édifiés sur notre détermination à ne pas laisser passer la forfaiture. Et je pèse bien mes mots. Et que ce que le ministère de l'Intérieur fait est inacceptable. Ce qu'ils ont opposé à Détier aujourd'hui est inacceptable. Leur passivité, leur inaction, leur complicité vis-à-vis de la liste Benno inacceptable dañu bëgg que nul n'en ignore et que duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg je vous